salam salaamaaleykum wa aduna deja tay muy feetu premier mai euh, di fetu kep ka nga xamne rek day liggey mo xam ñi nek ci kër yi mo xam ñi nek ci bureau yi mo xam nek ci marché yi mo xam aussi nek ci hôpitaux yi ak fep way nek rek di def dara pour askanam di def dara aussi jëmele ko ci bopam muy fête du travail di fête ba nga xamne aduna àdduna wërngal képp ñoo ñun nak wa plateforme Bay sawar ñëpp xamee ñu ci kuréel ga nga xam ne euh, dafay euh, euh, liggéey ci lépp la nga xam ne rek promotion wu savoir fair local si àdduna wërngal këpp ñu gën ko xamee ci Afrique donc daanaka tey li ñu fi tax a teew dafa bokk ci euh, événement bu mag a mag bi nga xam ne ci la ñu jëm muy la foire internationale des produits africains ñu gën ko xam ci FIPA muy regroupé nag euh, plus de trente euh, pays yi nga xam ne dañuy jóge fépp ci Afrique bi ñëw alhamdulilah mun nañu ne tey FIPA boobu yeneen i dëkk sax yu nga xam ne bokkuñu ci Afrique ñu ngi ci bokk war ci bëgg participer pour euh, cinquième édition bi nga xam ne ci la jëm mu nekk nag euh, événement ba nga xam ne moom laay wax événement incontournable des opérateurs économiques waaye tamit culturels parce que qui parle de l'économie rek parle de la culture te culture moo njëkk ci lépp culture moo mujj ci lépp te tey euh, foire boobu tey dina permettre ñun liggéeykat yi ñu mën a wane li nga xam ne tey mooy li ñuy def ba tax tey ñun ñu taxawaloon na calebasse ba nga xam ne tey dafay permettre jigéen ñi ak artisan yi ak képp kuy liggéey bëgg avancement bëgg yokkute rek euh, dañ la dañ la initier pour nga bokk ci calebasse boobu pour que mën a am sa stand muy nattal ma natt ma jël sama stand comme nag dañuy waaj a dem euh, ci FIPA bi moo tax tey ñu ne woon dañuy toj calebasse yi kenn ku nekk la nga ca dugal ñu xool la mu mat ñu la ci mënee am ñu la ci dolli ñu dolli la ko ci nga mën a am sa stand surtout nag suñu ay membre parce que membre yi ñoo ñu tax a jóg membre yi tey ñun lu ñu mën rek ñoom la lu ñu am aussi ci ñoom lañ koy jëmale amuñu lu ñu joxe waaye am nañu xam-xam am nañu expertise am nañu expérience ci euh, promotion de nos produits locaux partout dans le monde euh, ci biir loolu def nañu ay formation yu bëree bari jagleel ko suñu ay membre ba tey euh, ne tay seen produit fuñ ko tek rek ñu ne ñi wa membre bay sawar lañ tollu nañu fa nga xamne tay suñu produit

Nous les félicitons, nous féliciter di Nous encourager di wax ne stand nañu jënd seen stand ben yoon té xamné foire bi di nga ci carnet d'adresse di nga ci am formation mais aussi di nga commercialiser ces produits parce que tabaski lañu jëm te képp xam xam ne rek euh, fay liggéey bëgg na produit yi nga xamné mi ngi koy defar ñu mën ko jaay fépp ci aduna parce que bu ma aduna rek la foire internationale des produits africains euh, événement ba nga xamné la c'est l'Afrique en miniature té loolu dafa am solo ci liggéey doomu adam ñi nga xamné mënu ñu bouger tukki tay foire bobu dina leen permettre ñi mel tay ñanga nga Afrique ñi mel tay dem nañ Côte d'Ivoire dem nañ fenen ak fenen te foire bi macha allah dina leen permettre ngeen euh, ngeen am ouverture parce que tey ouverture weesuwul ay dëkk yu bëri ñëw teew ngay jokkoo ak ñoom di def biitu bii di waxtaan ak ñoom di xool ñoom lan la ñu am de di ñu ko indil loolu am na solo donc vraiment ñi ngi woo képp ka nga xam ne rek euh, liggéeykat nga nga daal di ñëw euh, teew ci foire boobu macha allah. waaw di kontaan bu baax ci sama sœur. Euh, ndax initiative bi lu am importance la ndaxte ñun jigéen ñi dañoo war di booloo liggéey di xàccandoo dóorandoo réseau international des femmes actives face au développement ñëw tey fekk si fi jigéen ñu jàmbaare yi fas yéene lëkkaloo ak ñoom ñu jàppante liggéey incha allah rabbi ndaxte li ñuy wax rek toujours jigéen dafa bokk ci société bi jigéen mooy sooklu société bi rawatina société sénégalaise bu ñu demee nag tey ba suñu ay moromu jigéen macha allah jël jug tey euh, di entreprendre yu mel ni lu demee ni que foire yi ak yeneen ak yeneen ñun dañ ciy kontaan bu baax euh, ndax loolu jigéen bu jug di yëngatu ci dara dafay apporter euh, une touche ci développement dëkkam te loolu ama am solo la tolaaneel au président de la république pour que plateforme Bay sawar bi ak réseau international des femmes actives pour le développement mu jàppale ñu ci suuf ak ay financement ak ay matériels yoo xamante ne dinañu permettre ñu développer sunu ay activités matériels yi ñuy soxla loolu bëgg nañ ko di kontaan bu baax a baax